waaye yooyu yëpp nag la ko la ko la ko tënk nag mooy rusdu wa tawfiq mooy daal na tegu ci yoon wi am tawfiq tawfiq nag la ci jëkk lay njëlbéenu tawfiq nag mooy gëm yàlla ak tegu ci aw yoon matu tawfiq mooy ar rusdu mooy njub googu mu mun nag nit ki nga xamante ne nag euh, sóobu na jaar ci yoon wi jub ñëwoon ko aw yoon dafa yaay ci moom mu muslu gàllankoor yi muslu it lépp lu koy dogale moo tax sëñ bi teg ci ni wa dammiran kulla aadain tuddaru bina te suñu borom wax ci alxaan ni wa man yaxtasim billaahi faqad hudiya ila siraati mustaqim ne da bu jëfandoo ci yàlla bu ngoyee ci yàlla na xam ni gindi nañu ko jaar na ci yoon wu juboo sëñ bi si wax ne bayit bii nag maanaam ga li ci dajale lu bari bari bari ba noppi ba noppi gàttal ko dafa gàtt waaye lu bari moo ci dajale na